diine jullit ñi ñoo di suñuy mbokk lislaam nag dafa wax ne allahu akbar ci sa bopp julli ne asalaamaaleykum ci sa mujjëg julli loolu war na la ne jullit liñ ko sant mooy màggal boromam te jéem a musal boppam musal bépp jaamam yàlla moo tax yonent wax na ne yàlla dana wax ne séddale naa julli ñaari xaaj genn wàll gi maa ko moom genn wàll gi sama jaam ko moom lu jaam bi laaj nag jox naa ko loolu njaal bee nag julli gi mooy màggal yàlla rek loolu yàllaa ko moom mu jëg julli gi mooy sàkkoo mucc rek loolu yow jaam bi yaa ko moom julli bu nekk yaa ngi cay màggal yàlla di ca sàkkoo mucc loolu moo di julli julli nag mooy ponk bi nga xam ne moo gën a foor ci suñ ponk diine yépp booleem farata yépp ñu ngi ko farataale ci kaw suuf julli moom ña ko farataale ca kaw asamaan yi juróom-yaar dañoo rayaane yonent bi xéega ko ba mu dem ba weesu kaw ba dem ba ca péer foofa lañ ko ci fekk julli ki gën a màgg mu di ko màggale yàlla di ci musal boppam di ci xëcc jaam yépp ñu jëm ci mucc yonent boobu nga xam nag ne yàllaa ko yónni te ne yónneewu ko lu may muy yermande ñaan mbooleem bindee bi diine lislaam du dara lu may diine yermande lépp lu ñu tëral ci lislaam te tegtalewu di yermande yàlla ak ak musal na nga xam ne rek dafa tëral dafa déggu lislaam waaye lislaam moom yermande rek moo ko tax a dikk yonent dañ ko yónni mboolem mbindeef yépp alquran dafa wacc ngir di yermane ñeel mboolem mbindeef yépp kon nak ñun jullit ñi dara dété desewuñu lu mooy nañ japp ci bi le téere nañ top yonentu bi de nañ jamm borom bi de nga xam ne moo ñu sàkk xamal nañu boppam koo war a jaamu yàlla mi bind asman ak suuf nit bu xolé lu mu jëkk gis suuf si taw ak asman ci ko tiim yalla bind yaar yoyu yalla mi la bind yow nit ki yàlla mi bind jurukat yi nga xam ne moom ngay jariñoo yàlla mi bind faf yi bind baxla yi bind mbaam yi bind yeneen yi ngeen xamut yeneen yi ngeen xamut feeñ na gannaaw bu téere bi wàccee mooy saxaar yeeg saxaar jéer yeeg saxaar ndox yeeg saxaar yi jaw yeeg automobile yeeg warwaay li du jeex yàlla sàkk na ko noonu na dana bind luñ xamut léegi sàkk na sax warwaay yoo xam ne dafay wër suuf si ba mu daj loolu yépp noonu na dana bind luñ xamut ki sàkk yooyu yépp koo de mooy yàlla ki nga xam ne moom nga war a jaamu ku dut moom nag sàkkul dara ki sàkk nag suñ ko fi waccee dem di jaamu leneen loo xam ne sàkkut kon loolu tooñ la moo tax jaamu du yàlla mooy tooñ gi gën a rëy jaamu du ca jële lu mooy mbugal rek waaye kenn du ca jële dara labe bi réer day dem istatéem sax defar istatéem defar ko ba mu rafet mu solal ko manta sukk di ko jaamu defar tëgg kurwaam ci loxoom sotti mu tapp ko di ko sujjóotal xam na ne na wocc nag ki ko bind dem di jaamu loo xam ne moom moo ko sàkk googa jaamu safar rek la jëriñ di jëlee diina fa yàlla moo di lislaam lislaam yàlla na ne mooy diine jëm xam wax na ne diina juñ jàpp juñ mooy lislaam moom yàlla du ko nangu su fekkee yàlla du ko nangu nag ñun jullit ñi duñ ko nangu am na sëriñ yu réer yu jaay seen diina di ko jëndee àdduna di wax ne catholique bu ñeesal catholique mooy lan catholique mooy koy wax ne yàlla yàtt lañ wala isa doomi yàlla la wala isa yàlla la ñetti pas-pas ñun ñëpp alquran na ne ku ko ci ku ko fas yéefar nga kafara alladina qaalu inna allaha salisu salatatin laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasihu alquran a wax ne xéefar lañ kon nag sëriñ bu ne duñu xéefar dañoo amee diine moom sëriñ ba ci boppam xéefar la génn na diine lislaam te ma ne dara loruñu maa ngi ciy delluwaat dara loruñu lu mooy réer ak sëriñ si rek sëriñ yi dañoo xamul dara waaye sëriñ yi nañ jàngi wala ñu noppi اللهم صل على سيدنا محمد فاته لما خلق وزرع